الحمد لله الذي سطر معائبي وكان لي ونصر سبحانه ربا كريما جادا لي, لسك لي بما لسكره قد قادا وهو الذي جعل حسن الأدب يخفي جهالة وخبخ النسب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا bu buñ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari wayjur di beral ak nduyoo akuk cant ak ndokkeel ak ñaan ki nga xam ne mooy sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te di beral nduyoo ak ziyaar sëriñ Hamzatu Mbàkke mi nga xam ni mooy jëwri képp ku yëngu ci wàllu xasida yi waaye di beral nduyoo ak cant mboolem ko yëngu ci xasida yi rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal jotaay bi fii ci jaalibatul maraaxib mu mel ni kii àddu ci kàddu gi mooy Mamor Ndiaye yor kàddu ahlu xasida Touba Kajoor ahlu xasida Touba Kajoor di kuréel goo xam ni ñi ngi ko taxawal le 24 janvier 2021 muy kuréel goo xam ni dëkk yii la boot bi ci njëkk mooy kel bëdd forage njaay coro njaay ngasama bëdd jeng mbijeen watteef ak jokkul dëkk yooyu mooy dëkk yi nga xam ni ahlu xasida Touba Kajoor tàmbalee na ci ab liggéeyam yàlla defit biñ ko dooree ñu def benn journée de lancement boo xam ne dañ koo taxawal muy journée xasida journée xasida bi liñ ci namoon mooy woo mbooloo mi nga xam ni ñoo féete kajoor wax leen li nga xam ni fas nañ ko yéenee taxawal ak liggéey bi nga xam ni fas nañ ko yéenee liggéeyal sëriñ Touba Xaadim rasuul ci wàllu xasida yi suñ borom it defal ñu ci tawféex ndax mel na ni kuréel gi mi ngi door a am at waaye dinaa leeralaale at mi mu am li nga xam ni jot na ko fee liggéey waaye di ñaan yàlla gën ñoo kàttanal ba mu gën a mën a jëm kanam ndax keroog biñ ko taxawale dem nañ ci sëriñ Muntaxa Mbàkke dem ci sëriñ xamsetu Mbàkke sàkku ji fa aw tur waaye sàkkuwaale fa li nga xam ne mooy ndigal biñ fa demee ñu jox ñu tur wi duppee ko ahlu xasida Touba Kajoor waaye jox ñu ci ndigal mu mel ni keroog bi ñuy dem mi ngi dëppoo woon nekkoon ci juillet deux mille vingt et un demee ci sëñ sa tamit mu xamal ñu ni addiya ji nga xam ni moom la diiwaan Ahlu Xasaayid di jébbale at mu jot at mii weesu nañ ko waaye na ngeen ko waajal ci at mii nu jëm kon bisu tey bi mën nañ ne mooy at mi njëkk a jébbalee addiya ëhlu xasida Touba Kajoor kon teewaay bii mooy suñ teewaay bu njëkk ci addiya ji ñuy dajale waaye ci looloot yàlla dimbali nañu ba weer wu jot dinañ def ci benn dëkk ci dëkk yi ñu ko séqal benn ngontum durus xasida boo xam ne dañ fay gontoo durus xasida jàng fa alxuraan dajale fa lenn nit ci ay addiya waaye yemul ci loolu ahlu xasida Touba Kajoor dafa bokk ci liggéeyam bi nga xam ni fas na ko yéene taxawal mbooleem dëkk yi nga xam ni ñoo ko séq dëkk bu ci nekk mu fexe ba amal fa këru sëriñ Touba. mu mel ni loolu bi ñu ko gaaralee sëñ Hamza daf ñu cee jox ndigal waaye jox ñu ndigal ñu commencé ko ci dëkk bu ñuy wax Njaay Ngasama sunu borom it defal ñu ci tawfeex ndax keroog bi ñuy teg xeer wi délégation bi nga xam ni moom la sëñ Hamza yabaloon sëriñ Cheikh Touré mii ci la bokkoon ak sëriñ Malick Diouf ñu taxaw fa taxawaay bu mat sëkk ndax loolu mi ngi nekkoon ci août 2008 août 2021 boobaak léegi ay weer yu néew la li tax li may leeral foofu rek mooy fi liggéey bi toll ndax yàlla dimbali nañu bañ am fa barab boo xam ne mi ngi toll ci 30 mètres waaye yàlla dimbali nañu tamit ba ña nga ca liggéey ba di fa taxawal këru sëriñ Touba goo xam ni miire nañ ko ba noppi taxawal fa ñaari néeg yoo xam ne benn bi néegu xasida la beneen beet néegu daluwaay la foofu mooy fi nga xam ne fa la liggéey ba toll te biñ ko xaymaa ci li nga xam ni moom la fa jot a def ci wàllu koppar toll na ci 2 million ak lu topp loola ci ay weer la yàggut biñ ko dooree beneen bi ci desit mooy keroog bi sëñ bi wootee ci àddiya ji ñu war a dajale tey jii muy diir bu néew ahlu xasida Tuubaa Kajoor it bay na ci aw waaram ndax mën naa ne amagul doole dëkk yi néew ñoo ci bokk waaye farlu nañ ba lum gàtt gàtt gàtt am na lu ñu indi donte ni nawuñu ko ndax dañuy soog a door waaye yàlla dimbali nañu ba indi nañ fi lenn ci ay xasaayit indi fi lenn ci haddiya ak limu xasaayit yoo xam ni jàng nañ ko ci li ma bëgg a foofu mooy képp koo xamante ne nii bokk nga ci tund kajoor tund kajoor buñ ko waxee yaatu na képp koo xam ne bokk nga ci dama koy commencé ci ñi nga xam ne ñoo nekk Louga ñi nekk Kébémer ñi nekk Ngaay fépp koo xam ne ci kajoor la bokk ñu ngi lay tàllal loxo ñun waa ahlu xasida tuubaa kajoor ngir ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ci xasida yi képp koo xam ne noppi na ñu nit noppi nañ ngir ànd ak yow ndax buñ xoolee jotaay bi ànd liggéey mooy li nga xam ne mooy tax ñu am li ñu bëgg ndax mbooloo mooy doole benn pàcc rek su beroo di liggéey keneen beroo di liggéey mën naa sooxe waaye buñ mbooloo luñ song dinañ ko mën a daan te loolu mooy li nga xam ni moom la sëñ bi santaane. kon ñi ngi soññaat mbooloo mi ci fànn boobu di leen soññaat ci ñi nga xam ne ñoo féete kajoor ñu ñëw ñu ànd liggéeyal sëñ bi ci xasida yi ndax wax naa sànq ne suñ mébét liñ nam liggéey ci xasida yi mooy bépp dëkk boo xam ni bokk na ci ahlu xasida Touba Kajoor nga taxawal fa kërug sëriñ Touba loolu nag yàlla def na ci tawféex ñi ngi ci ndax kër giñ ci jot a tàmbali am nañ yaakaar ni balay yàgg dinañ ko matal ngir jéem a taxawal geneen kër ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo ko séq mu mel ne bu dee lu jëm ci ahlu xasida bi nga xam ne mooy diiwaan bu mag bi kilifa yi leeral nañ li ci aju kon du jar ñu cay sore waaye dañ ñoon ab tënk rek ci li nga xam ni moo aju ci wàllu kajoor ak li ko wër wax leen ni am na kuréel fa taxawal duppee ko ahlu xasida Touba kadior di ci tàllal loxo nag képp koo xam ni bokk nga ci kadior ñu bokk liggéey kon kàddu yaa ngi noonu mu mel ni ndongali moo doon jotal kàddu yi rek lott lool na ci jotal ko lu ci dëng ñu xam ne ci man mii la waaye lu ci ñu xam ci ndimbalu suñu borom la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. suñ Mamor jërëjëf